jamono ji su jotee mënuñ def lu dul ñëw si dëkkam bi teewal ko fuglu mbëggeelu yenant bi dajeeg suro faafu bi dajeeg njabootam yi waaw màggal guddi gi looloo waraloon suñ taxawaay fi xanaa ñëw a màggal bes bi rek bési sëriñ macha allah sa Ibrahima Niass fu mu nekk rek fu ñu nekk dañ koy ñëw fi fekk fi pour màggal bes bi kontaan ci lool nag ñaan sag année la ñu fekkee ko mais ñu fanu gudd ànd ak wér gu yaram kontaan nañ lool am mbégte kontaan bu baax a baax si bés bi dëgg yàlla di ñaan lépp ñu fi ñaan yàlla na ko yàlla nangu su fekkee Seydina Mohamed fekkee sa Ibrahima Niass ah dañ màggal si guddi yonant bi di ñëw Medinatul Barhamiya di ñëw ziar ci suñu sëriñ Maulana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass di màggal guddi yonant bi rek comme niñ koy defee fépp ci àdduna bi waaw ñun ñi nga xamante ne fii lañ jokk Medina Baye ñu ñëw tey pour màggal fi si suñu sëriñ waaw sàkku ñaan si zaahir ak ci baatin. xanaa bëgg rek bëgg rek ci suñ suñ maam El Hadj Ibrahima Niass rek bëgg rek bëgg mbëgg goo xam ne xamoo fu mu commencé xamoo fu muy yem moom lañ bëgg sant yàlla rek. di ñaan yàlla at mu jot rek ñu mën a ñëw rek ñaan suñuy soxla te bu ñaanee yàlla ñu yàlla nangul suñ maam tim fa mu tëdd yàlla na ko yàlla yërëm te yéexuñu fi mu ñu féetewoon nag ñu ngi koy gis yàlla na ñu ko yàlla yokkal. damay bëgg Mawlana Cheikh Ibrahim nga xam ne nii mooy sangub sang nga xam ne daf ne moom bu yonent bi doxee mu dox bu dawee mu daw nee moom lépp loo xam ne moom lu yonent bi bëggul rek bëggul ko mooy sant Maolana Cheikh Ibrahima ñun moo ñu indi fii dara ñor euh, ñu nekk na bàyyi moo ñu dugal ci li nga xam ne nii moom lu ñu bëgg mooy baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah xanaa ñëw ziyaare maam Baye rek dama kaa bëgg ci sama xol bi nag ci sama xol bi laa ko def di ñaan rek luñ fi ñaan rek lépp yàlla nangu ko ci barke maam Baye Niass a ñëw gamos rek ci sama pays Serigne moom ñoo ñu indi fii tey waa di sant yàlla bu baax bi ñu yàlla boolee ci faydu gi ñu ngi ci sant yàlla bu baax eh, di ñaanal yàlla képp ku fi ñëw yal na la nangul sa gammu yal nañ ko gammu at yu bari yéen itam ñu ngi leen di jërëjëfal ci liggéey bi asalaamaaleykum wa rahmatullah hani an li ibrahima allah hilaaluhu hilaalun badali naazirina jamaala hilaalu rabbi fihi jaa muhammadin fa tammalana al bushra wa hamna wala léegi mbégte boobu nag moom moo tax ñu Medina Baye ngir bokk ko ak ñëpp féete ko euh, féete li nga xam ne mooy guddi yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent nga xam ne moo tax lépp am lu taxutoon moom dara du fi am moo tax bàyyi ne tag na ko ne ko lu huwal kullu minhul na bannan wa zahiran fa si siwaahu ma lanaa fii masrabun yonent bi sallallahu alayhi mooy lépp te lépp su moom la jógee ko amul géej gu gudd yonent bi sallallahu ñun waa Kër Baay ak taale Baay am naan waay gudd géej yonent bi sallallahu alayhi kon loolu moo tax ñu teef ñu di sant yàlla baax a baax a baax di amaat mbégte bu baax a baax a baax. bu lay euh, waaw jamono bi moom wax dëgg fa yàlla suñu xol a ngi sedd guy ndax euh, ni ku nekk moom li nga liggéey rek loolu la yàlla di fayee Cheikh Ibrahima dafa bëggoon yéen ba nga xam ne euh, na ne sax falaw sawarooni fil haqiqati lam yaraw si waa sax si mahbu bihi atamataw su ngeen bëgg su ngeen ma su ngeen fotoon su ngeen fotoon su ngeen sottee kat yi yéen sallallahu alayhi wasallam mooy génn léegi mbëggeel googu nag moom la ko yàlla fayee ba ñun dañ koo bëgg-bëgg goo xam ne dañ ko dañ ko dañ koo bëgg-bëgg goo xam ne ñun de amuñ sago si moom loolu moo tax ñu ngi am mbégte bu baax a baax a baax a baax di teew si dëkk bu tedd bi nga xam ne moo di Medina Baye Niass bon contentement rek kontaan nañ trop ndax tey dañoo ñëw màggal si gàmmu guddi yeneen tubéeg yooyu daal bon di wax ni rek euh, yoonu yàlla daal mooy lépp amul xale amul mag ñëpp a ngi ci. maa ngi woo waaw toute la jeunesse ni leen Baye mooy dëgg te slogan boobu noonu dañ ko war a naka naw yëpp gëstu ndaxte Baye mooy dëgg lu tax ñu naan Baye mooy dëgg lu tax ñu naan Baye mooy la solution lu tax tey jii nii gàmmu yeneen bi bu jotee ngay gis toute la population mondiale de tous les coins ñëpp daje si Kaolack fii nii te fii nii ay taax bu rafet. du du dëkkuwaay yu yu yu la du bakkan bakkan amu fi cër. ziare Mawlana Cheikh Ibrahim rek moo ñu ko jaral macha allah ñu koy def comme chaque année rek am kontaan mbégte bu weer macha allah loolu moo ñu fi indi di ñaan yàlla lépp luñ fi ñaan rek yàlla nang ko barki borom guddi bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah, kontaan mbégte. foo ko natt rek wees na ko wax dëgg fa yàlla instant bi ñu yegsee rek dafa mel dafa am beneen changement ñu yëg leneen suñu xol loolu bëgg rek moo ko mën a def kon ñu ngi sant yàlla bu baax sant naa Cheikh Ibrahima moom rek lañ am. dëgg dëgg dëgg yàlla kese la ñuy sentir dañuy am yaqin ne waaw ñëw nañ bërëb bi nga xamante ne ku bëgg yonent bi dëggantaan moo fi toog. ku bëgg yonante bi koo xamante ne léppam ci àddunaam yonante bi la ko jagleel xamante ne lépp lu mu doon dox pour xadiratul muhammadiya la waaw moom lañ ñëw ziare si di am kontante bu bari bu bu bu bu kawe boo xamante ne mënuñu ko natt waaw. bi mooy sa ñaateelu yoon ngay gàmm si. bi mooy sànq maa ngi sama 15e année may gàmm waaw bi mooy sama quinzième année waaw di ñaanal ñëpp di ñaanal Sénégal di ñaanal particulièrement Grand Yoff bi nga xamante ne foofu lañ bokk yàlla yokku ñu yokku ñun ñëpp ci zaahir ak ci baatin yàlla defal ñu lépp li nga xamante ne moom lañ bëgg may ñu suñu sàkkuteef may na lu may ñu lu kawe suñu njort ah xanaa bëgg bàyyi ba mu jeex tàq ndax bàyyi moo ñu xama yàlla moo ñu xama pays bi kon dañ koy sante yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa waaw wax dëgg yàlla la mooy kontaan la mooy kontaan bu baax a baax a a baax sëñ bi kontaan beeg lañ eh, na juróom-benn yoon dal ndax boo ma gisee mooy lii sax que damaa liggéeyal seexal islam. yaa ngi yëg yokkute. bu baax bu côté bu ne yëgee naa ko foofu sax. waaw waaw dama am naa njaboot goo xam ne nii fi lañ jógee ko ci topp bëgg Mawlana Cheikh Ibrahima moo ne tax a génn dem liggéeyi. waaw lu may wax rek mooy. ñu jéem a gëstu kan mooy Maolana Cheikh Ibrahim yaakaar naa ne bu ñu xamee ne kan mooy Maolana Cheikh Ibrahim rek euh, ñëpp dinañ daw fuglu jëm si moom te bu boobaa Sénégal li nga xamante ne moo ko téye fii bu ñëpp nanguloon kan Maolana Cheikh Ibrahim rek réew mi dina dépassé fii ñàkk ko nangul rek moom moo ñu téye nii waaw. waaw El Hadj Madi Dramé. Ah, Dakar. waaw ah, dañoo ñëw ci mawlud bi rek. di guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci euh, comme ni ko Baye daan doxalee rek loolu lañ gis moo tax bëgg gu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax dëgg yàlla moo ñu xiir ñu nit lépp lu xew rek ci mbiri na rek incha allah muy guddi yonent bi dañ fi teew wax dëgg yàlla gàmmu gi moom buñ koy bu jublu seere dañuy kontaan yàgg fekkee bis bi yàgg koo teewee kon nag ñu ngi dalal gan ñëpp di ñaan yàlla yàlla nañ ko teewee déwén. te déwén tamit dàq ren mbas mi nekk ci réew mi tamit yàlla jëlee ko fi waaw loolu yëpp ñu koy ñaan yàlla ci barke Maolana Cheikh Ibrahima Niass nga xam ne mooy ma bëggoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba xiin ci taalibeem yi ñëpp mbëggeel gu mbëggoon yonent bi rek moo tax ñëpp di ko roy ci loolu kon nag léegi daal kontaan nañ lool wax dëgg yàlla kontaan nañ lool. waaw kontaan rek kontaan rek wax dëgg yàlla gërëm Maolana Cheikh Ibrahima Niass lool gërëm nañ ko gërëm nañ doomam bi ñu ngi sant tamit xalifa bi muy Cheikh Maye ñas ak Baba Lamine ak euh, doomi baay yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla gudd fan gu ànd ak wér fu ñu toll ñu leen di ñaanal yàlla. waaw may wax Sénégal yëpp ne leen buñ buñ daw Cheikh Ibrahima Niass nañ ñëw euh, jéem a jàng jéem a jéem a xool si moom jëm jëm kaaroy ndax fii Medina Baye ay njëriñ kese moo fi nekk. pour jaamu yàlla yëpp Banyees ñëwul fi pour Saalum kese ñëwul fi pour Sénégal kese ñëwul fi pour Afrique kese ñëw fi dafay ñëw pour àdduna bi yëpp ñëpp dañu war a jëriñ si moom. kon ala kulli haal maa ngi woo àdduna bi yëpp ne nañ ñëw jàpp si euh, Banyees mi nga xam ne waxoon ne tamasak bi asyaani nabi mutaabian euh, masaahibu wa mursalat falaala comme ni ma waxoon ne da ngeen jàpp si mbicc Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu leen bàyyi dara si moom na ngeen topp ay yoonam noonu laay woowee waa Sénégal tamit ñoo jàpp si Banyees te jéem a topp ay yoonam.